jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou ñëpp moom mereka rek moom yaa yang def yàlla na fi yàgg te wér Serigne yang Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér yaa dañu yóbbu xale yi bisu tey mel ñu jëfee ndigalul sëriñ bi dellu si ay bis gi jeex ñu tombe ci anniversaire bu sama daje ak sëriñ Saliou te lu ñuy wax prise de conscience saa su ne mën naa dal ab jàmm dem naa ba bis bii di 17 avril doon 17 avril 1946 dellu si tey di 17 avril 2004 de ma yëg ni li ma doon sant Sëriñ Saaliwu lépp ci bis bii la juddoo la ko jiitu wóor na ma ni waroon na maa sant Sëriñ Saaliwu waaye booba sant ko mën ma ko woon ndax booba aw bay atam aw ba xam-xamam aw ba am manam kon fi ma tàmbalee war a sant Sëriñ Saaliwu moo doon 17 avril 47 46 te booba yëpp ñëwuma ko xamuma ko cant yi may wootee sant Serigne Saliou yëpp cant gi moo waroon a jur cant yëpp cant gi bu tey gii mooy gudd si bii jur sama nekk murit ci saayir ba leer na ma ni ba Serigne Touba defee sama roog yi mu roog murit booba ñëwagunu àdduna ba boole ma ci murit di asal te Serigne Touba bere ruu ya a doon ay murit leer na ma ni ca la bere sama sama roo waaye foofa sori te xamuñu ko ci xam-xam rek lañ ñu ko yëgloo mi ngi liggéey bu fii waaye 17 avril 1946 war a toll ci waxtu 11 heures 10 heures et demi 11 heures ndax booba naaj yu tàngagul di 9 heures ba ba 11 heures booba sëriñ Saliou dugg ci wutiir fas dama koy baamtu ndax gan yi ndax ñu bari ñu ngi koy nettali te léeg-léeg ñu nett leen ko neex waaye ak suba la woon waaye booba nag naaj wi booba jant bu fenk na lu yàgg muy jamonoy cooroon cooroon muy avril ne tàngaay di tàmbali fii ci Sénégal cooroon ci la ñuy ruuj tool yi di gajj ak lukkat cooroon mu ngi tàmbalee ci weeru avril jëm mooy jamono yi nga xam ni réew mi tàngaay wi ci yenn région yi a tumbling maanaam di sélectionné thèmes yi nga xam ni ñoo war a mën a dem ci mbéy mi bu ñu ko musaan def période boobu day mel ni waxtu période njaayum gerte dëkki kaw yi day tàmbali neex ndax gerte gi ñuy tànn gerte temb yi nga xam ne aptuñu pour mu jileen dañu leen di tudde buuse ay xar da ci am ak gerte yu rëbb gris yoo xam ni boo leen jiwe nit duñu sax ndax makken ga dundul mooy li ñuy tudde buuse walla boog mu doon gerte yu saabu yoo xam ni ñoom it boo leen jiwee duñu mën a sax loolu yi di buuse moom la béykat yi daan jël bu ko defe am ñeex ñeexum nëxal wala ñeexum baase dëkk daan neex ndax nit ñi da ci daan am ñoo xam ne seeni jiwu dañ ci daan buy di jaayi di fayee seeni bor ak di faje seen soxla ne bu ñu musaan jël seen gerte dañu koy weccee tool yu war a mën a béy ndax booba ñëpp amuñu ay tool ñun suñu bàyyi amoon tool bu rëy te soriwul dëkk bi booba doo nga dëkk taseet nag gilli sama mag ji ñun suñu waajur wu góor musul ab ñaari soxna sunu ndey rekk la amoon ndax daa waxoon ni mënatul a gis jigéen ju mel ni bambi caam sunu ndey boo nee kuli boo kuli doo wutum ñaareel mu ne wër naa wër waaye mënumaa gis ku mel ni bambi caam kon moom rek laay jël yàlla dogal sunu bàyyi taawloo aji maam benn sunu mag ju jigéen jee fa tuubaa tey ndax tàmbali naa mu ngoo topp nag dem tuubaa ka ca tege sàmbalaw be la tudd sàmbalaw be góor la woon sama bàyyi tudde ko chef de canton bu Bayam ñenn ndax moom la àndaloon jóge Kajoor dem Mbuur mu nga jëkk dëkk ci kër Serigne Saliou gii tey booba Samba Lawbe moomoon kër ga ba mu faatoo la jaay kër déedéet laata muy faatu mbaaxaan chef de canton ba ko wutu woon ca Bayar ñenn moo dëkkoon ci kër ga ba koo demee la ko jaay góor gi Mor Samb maam la ci Mbay Juuf nii benn bi muy rakki soxna mboose maam la ci moom moom nag taalu bu sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke la woon moo joxoon addiyee sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke Mbàkke wax ni dinaa la jox kër gi addiyee waaye da nga may nungul ni maag yow noo bokk bàyyi ndax li sëriñ tu sëriñ Saaliwu ni moom moo ko jur te daa jëkk wax ni amul doom waaye dem ba yàgg wax ni sëriñ saaliwu moom doomam ma kon noonee le sëriñ saaliwu jote ci kër ga ci saayir fekk dañu moom lépp waaye mënu su ko woon a xam kër googee dimi sama mag ji ci biir kër googee la juddoo te jamonoy Samba Lawbe bi loon chef de canton Bayar Niamine Bayar ak ñaniñ ñaari terroir la ñu woon yoo xam ni ci département Mbour la ñu ne buñ féetee sowu buñ ak bëj siin sud-est moo doon ñaniñ ouest moo doon bayaar ñaari canton cosaan la woon yoo xam ni booba sàmbalaw be moom moom canton boobu moo ko yoroon du temps colonial booba tubaab yi lañu fal ay chef de canton ñu doon ay buur le leen à laissé le plus bas après le village ce qui était le canton à l'époque sama bàyyi ànd ak sàmbalaw bay jóge fa ñu dem bayar samba di buur ba sama bàyyi doon loxom di bi ab géwélam mun cee jamono nga xam ni booba sàmba lu mu bëgg a def sama bàyyi la koy defloo ndax moo xamoon nit ñi boo euh, mënoon jaxasoo ak nit ñi ak yu demee noonu loolu moo yóbbu sunu bàyyi yi dëkkoon caajaay yi au conseil du du Kayor foofee la sunu ndey jóge ànd ak sunu bàyyi ñu dëkk Mbuur ca kër googee ma leen doon wax ba yàgg Samba Laobé chef de canton ba lépp réew dañu wóor dëkk dëkk bu naan mala pour la kër sàmbalaw be léegi tàbbi na ci biir mbuur ndax mbuur s'est développé ba mëtt na Malakunda Malakunda googee ci mbuur foofa laa juddoo man nga xam ni am na marché dañ ko daan dugg bu sub altine taseet bu sub altine dëkk bu tëmb woon dañ fa daan jaaye lu ne les marchands des villes du Sénégal le lundi convergeaient waay jógee malam ko ñu kër sàmba mu ngi toxu si kaset fekk na man juddu naa gille juddu aji soxna mii juddu bi ñuy ñëw kaset booba amat jiw ñii tey teral tal woon mu ñëw suñu ndey kon sama ndey amoon na juróom benni góor ak ñeent jigéen moo fukk ñett ñi faatu wala déet muy màgget noonu laa Kumba Sall ñu mu tudde woon sunu maam ki jur sunu maam ki euh, jur sunu ndey ki jur sunu bàyyi Sàmba Lawbe ak seexub ndey Kumba Adama ñu des juróom ñaar tedd aji soxna aji day kumba ak ñeenti góor di sëñ gille mii di man di ëllëg ji di murit nekkoon booba chef de canton la ñu àndal ak suñu bàyyi ànd ak moom ñu doon ay buur daawu ñu béy suñu bàyyi daawul béy aw ay tool bi nga xamee ni jamonoon nga suppiku bi ñu ñëwee taseet suñu bàyyi tàmbalee béy ba mu ci yoonu Cheikh dafa amoon tool bu rëy bu dëkk bi booba privilège la ci nga am tool bu ndax booba tool yu ñu dëkk ba dëkk fa seeni maam boo sa booba ñoo mën a am par la proximité du chef de canton

daa bokkoon ci ñu Sëriñ Tuubaa seexaloon ci jamono kon mu personnalité bu amoon tur dans le terroir kon yoonu mu jëm tur dëkkam day daldi am tour day am réputation toolu suñu bàyyi yoonu ko Cheikh ma Diop da koo xaram en deux di parti nekk à l'ouest lire tool ba it am na lu ko doon caractériser ndax xamuñu woon lu ko fa def waaye tool ba amoon na benn mu parce que nous séréer la c'est le Jobas. c'est un terroir qui avait été occupé par les juste ici d'ailleurs Passer est un village wolof moitié séeréer et les séeréer sont les occupants traditionnels du village de Tasset amoon na fa kàmb boo xam ne jàpp nañ ni manar, séeréer la woon mooy les Congo des des des célèbres manar, daa yooyu su ko defal un séeréer ordinaire mais fait séeréer yi defal mbanaar nga xam dañ koy dañu koy jal ba mu doon une benn ñaareel ba booy dugg ci tool bi da weesu le cimetière de Tassette boo weesoo cimetière bi ngay tàbbi ci tool bi ci borne bi presque ci digg li y a un un arbre qu'on appelle le rëbrëb rëbrëb rëbrëb gëpp nga xam ne booba du du du du garab bu bari ci terroir bi espèce rare la woon ñu tuddee ko garabu rëb-rëb ñuy wax tool bi ci rëb-rëb gi booy dem kër Seex Maajur bëgg si ci rëb-rëb ga nga xam ne repère la woon ci sama tool bàyyi la demoon actuellement le meilleur forage du département de Thiès se trouve à à à Tassette et dans le sens de mon père foofee mu sëriñ Saliou fekk dëkk ba fa la ab forage am ne mu muy nag sori wu mu yoon lañ yoon naa ngi xar tool bi ñu nekk à droite à l'est à l'ouest bi ñuy béy sareetu autoroute suuf sëriñ bi romb do man ma daal di sëpp sama bopp daal di daw di langu ci ma fas wi booba ki ci de sax li téelu man booba dama maa ngi lagg rek bëgg dama lang ko dee day lang saret bi robb na mu may lang bu doon léegi course bi dafa koy karawaas ndax moom la ñuy def ko nay lang ci wutiir yi léegi kenn ñu ko booy lang féet la karawaas waye boba lolo xewu may lang serigne bi di coche bi taxawal ba mu demé bu djub kàmb ga wessu mu djub rëb ga jaar na ci xur ni ba yéeg montagne bi kàmb gi ne mu ni coche bi taxawal mu taxaw mu ni ko neel ndongo lool mu ñu kay nuyu kay bi ma daal di talal sama loxo ben loxo ni ko mbàkkee booba xawma lu mbàkkee waajee ma ni rek ne ko mbàkkee ma ni mbàkkee ndax booba wax dëgg xamuñ woon lu sëriñ Tuubaa man damay wax nan bobu juróom ñettat la am dugg école mu mel ni kon soit juróom-ñetti at laa am wala juróom-ñeenti at c'est parce que booba dugguma école te it aw ma woon yeewu teg mën a xam sax samay at ndax booba boo amee juróom-ñaari at juróom-ñetti at ngay dugg daaray alxuraan ñun jàng doon alxuraan ba mën a xam ci man at la ñu waroon a dugg alxuraan amuñu it amuñu niveau état civil ba mën a xam ñaata at la dañu koy à rek à sëriñ bi bu ko nuyoon noonu mu laaj na sama tur tudd mu ma noo sant ma ni ko coom mu ma ca tool ba kanam ma ne ko saa maga gilli coom mu ne xam nga sa baay Isma Juufa ma ne ko waaw mu ne bu ngoonee maa ngi jëm ci sama daara ji ñuy wax kër Cheikh maa Jóob dinaa wëññi ko ñëw paseet bu ngoonee yàgg sa mag joojee na ngeen ma fekk sa kër bàyyi Isma Diouf noonu la du la de laa dellu ca tool ba booba Sëriñ Saliou ci saayir booba du mag Sëriñ Saliou mu ngi sol booba xaftaanub fil bouton mbasañ bu weex mu ngi sol bonnet carré bu ñuul sëñ Saaliw doom ca yooyu jamono mënoon na maa xam ni góor gu rafet la woon gu rafet yem ca kaw ndax yàlla daa dogal doomi sëriñ Tuubaa yépp sëriñ Saaliwu sut moo cëpp daraja ñoom yépp dañu ko ci doon tollaleel pour nit ku rafet dañu Serigne Saliou boo ko doon xool day mel ni bëñu nàkkre weexaayu nàkk daan kaala moom rekk moo ko mën bu sëriñ Saliou bàyyee façon kaala woowu laa gisatul kenn kuy kaalawu ni sëriñ Saliou daan kaalawoo am na ci photo yi ancienne photo yi am na ci kaala mooy bi mu kaalawoo doo gis kenn ku kaalawoo noonu ndax am na ku ab jigéen léeg-léegaat mu génn gaa yi di ko yëkkati fii photo noir et blanc la booba sëriñ bi bu mag ma gis wax na dëgg kaala gang yi kaala gang yi doo gis kenn kenn kenn doo gis kenn ku kaala woo ñu sëriñ Saliou daan kaala woo gis ngeen bone carré bu ñu ñibbi ci biir bi la sëriñ Saliou daan kaalawoo di góor gu rafet barke sëriñ Saliou ba nu wàccee ak góore waay waaw kay ah kaañ waa ngi waay alaaj oh. barke sëriñ Saliou kii moo dàqoon ci góor ñi barke Serigne Touba Serigne Saliou boo ko xoolee daawul xool ba fay bët dajeeg bëtam Serigne Saliou foo ko fekk day sëgg sunu mag aji mampet da coon ñàgg maandu sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu ku mel ni moom man na maa waat sëriñ tubaa ku mel ni sëriñ saaliwu mos wàcc ci kaw suuf booba sikki moom bii sax booba sikki ci xam naa ñaar fukki at jëm fanweeri at xam naa ci yooyu jamono lay doon mun naa xam ndax ñu ngi daté ab juddoom 1914 muy sëriñ bi ci saayir taalibu bu sëriñ Moodu Musaa Mbàkke la woon bu jëkk ci jë ci booba jamono Omar Diouf mi ngi di jàng kasaayit sëñ Omar Diouf kasaayit baayam moo doon nagi Baye Isma Diouf baayam ak Baye Isma Diouf ñoo bokk ndey ak Baye Baye Mor Maada Diouf ak Baye Isma Diouf. ñoo bokkoon ndey ñoo bokk ak bàyyi seeni doomu bu firi ne taalibu Sëriñ Saaliwu la ñu Omar Diouf moomu bàyyi Mor Maabe Diouf moomee amoon na diggante ak moom ndax Omar Diouf ñi jànk saa it daa teel a jébbalu ci Sëriñ Saaliwu te booba Sëriñ Moodu Musaa Mbàkke mooy xalifa général booba day mel ni kenn ni ñu mën ci keneen ku dul sëriñ Modou Moussa Mbacké seex yi fa sëriñ Tuubaa bàyyi woon yëpp dañoo jébbalu mel ni booba seex bu ci jébbalu sëriñ Modou Moussa Mbacké mel na ni di nga am problème moo doon xalifa bi moo doon xalifa yoon yi ñëpp teelee jamono dañuy jublu ci moom loolu yi moo moo tax ba fi mu ne daaru xudus ci murit yi ñu gën a bari li ñu tudd ay seex gën a ndax dañuy tudd téeméeri seex ak nangam léeg-léeg nga dégg bu ñu waxee ndigal naa wala ñaari téeméeri seex ak yu demee noonu loola mooy dañu tudd seex yu jëkk ya ñu ñu fi bàyyi ci ay doom wala ay sët Omar Diouf teel a Sëriñ Saliou bàyyi Mor Maada bàyyi Isma du bàyyam amoon naan moom nettali daan foye guddi ak tàkkusaan mooy li ñuy wax gartombe gartombe c'était un de violence parce que cercle ngay tracé ay nit nekk ci biir ñi nga xam ne bokkuñu boobu équipe di jéem a ci biir cercle bi di génn ñi ca ba ñu gën li nga xam ne moom lañ leen wutël doo dóor bi mooy yow doo dóor waaye boo duggee bëgg a génne kenn ci bi dañu lay dóor du leen di génne di leen ba ñu jeex équipe bu nekkoon ci biti dugg ci biir ñu ne nekkoon ci biir génn nag léegi ci biti leen jéema booba man sax mettu woon man booba daanaka man aw woon solo waaye ginde mii la la xale yi dëkk bi bëggoon ndax mu soxore woon waaw booba booba ginde bu ñuy keddoo keddoo bu ñuy seddoo keddoo keddoo keddam piku wépp naa diw wépp naa diw booba gaa yi dañuy bëgg wépp ginde ndax ku mënoon ma pële la bu tàkkusaan jotee te ñu jóge wuñu suñu kër ñëw barkalla ak góor bu ñu jógee bu ñu jóge wuñu kër ñëw ci dëkk bi poma du demee noonu ndax dañuy seen bugile suñu bàyyi nag mu ngi woon moom po bu ñu te musaana dem reer jotee bu ñu reer siwul dadaan tere suñu ndey mu di ñu may reer suñu ndey dadaan ñëpp di ñu tuddal reer di ko nëbb waaye bu suñu bàyyi gisee keroog dara du ko jar ci moom ba taxoon na tàggu suñu bàyyi tàkkusaan bu génn sax booba jëliwuñu ko waaye baatuñu suñu saaliw feeñ ca di jooy jamono nga xam ne xamuñu woon luy baatin waaye dañ koo tàggu rek bu ñu aca dem leen bu fekk sëriñ Saliou kër Baye Isma Diouf mag ñu wër ko ci ba ci ay basan ñu mu daal xàll man ñi ba ñu si ci moom fekk muy attaaya kaas ba mu jëkk euh, euh, kaas ba mu jëkk sotti mag ñi la ko jox mag ñi bu mu yëkkatee ku ne alawtiku mu daal di may joxoñ ma daal di euh, raam ñu daal naan kaas ba mu tàmbali joxe nag keroog naan na ma fa juróomi kaas Serigne Saliou ma ma wax leen ni ataayaam fekk abul ci juróomi kaas du bàyyi juróomi kaas lay joxe bay bëgg tëri ñu ne nu duggee di toog ba reer fa la nu reeree cerey wata boor cerey yàpp wata mooy gàtt bu ñu rey tey tey tey yàpp woo xam ni la fa mu jógee dañ koo rey tey tey tey togg ko tey tey waaw mu yàpp wu bees moom la ñuy wax yàpp wata boor booba cerey wata boor lañu ko toggal ca la nu reer ma billi ba bu ñu dee tollëg fa ñu naan mu dem murit ñu naa jéblu ngeen ñu naa ah, mu jéblu ñu naa ah, waaye yéen topp leen fële waay yéen dëgg yéen du ngeen murit sëñ woote kër Ablaye Jaw booba euh, tudd dañ daan bayal sëriñ Saaliwu tooli àllarba ñu dem ca tooli àllarba ya fekk ko fa ñu ko nuñ kat keroog bi ñu ñëwee ci yow euh, danoo danoo danoo wax naan ay murit lañu ñu dinu laaj ndax jébbuñ leen ñuy laaj ñun xamul luy jéblu ñu ne yéen topp leen fële duggee ni murit mu naa ah, xawa laay bisub keroog de laa leen làq ci dongo yi looloo tax may wax sama njëbbal di ko dase ci bis boobee ndax bi may wax jébbal naa sama bopp àddina ak alaaxira booba bokkul ak bis boobee bu ma naa ci bis bii laa jébbul mooy li Saali wax ne keroog ba mu dajee lanu làq ci dongo yi xam ne bi boobee ca la ñu jël muy ko fa dum jëbbal ca la bis boobee nag mooy bisub tey jii 17 avril 1946 ba jëkk laaj sëriñ saaliw ci jamono mooy mbàkke cey bi ma bëggoon a xamee kañ laa jébbalu ci yow mun ma ca at mas sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke wàcceeb liggéey ba ca déwén sa la xam nga boobu ndax mooy benn dëkk du gën a wér ndax Serigne Saliou ko wax waaye dafa am bu mu dëkkee Ndakaaru booba booba secrétaire général la communauté urbaine bu Dakar ma dëkk Lobat cité Lobat Fall ndax soxna Aïcha falaa ko wutaloon luus ba dem këram reer ba mu waaj tëdd sama xel takk ci sëriñ bi de wax na may mille neuf cent quarante six la waaye nag date bu précise day xaw ma ko mu ne sama xel waxuma ko nag waaye sama xel laa koy wax mu tëdd ba fajar loolu soxna ay saa leen ko wax soxla su nu mu demee Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou Cheikh maa ngi sant jërëjëf Thioune man boobu xam woon ne sax da ngaa fas dara man damaa tudd ba guddi jékki baat ne ma 17 avril man loolu rek laa laa la ma baat bi wax ngént nga fa la yem ma yeewu bi ma yeewoo ma wax la ko nga ne ma man mii maa xam li la sëriñ bi woon nga daal di may expliquer li mu demee noonu xam nga sëriñ Saliou moo mën mbir xam nga bu ko waxoon ci weeru wolof ñooñu du ko jàpp du ko xam man nit du ma ko xam moo xam ni kii jàngalee tubaab bu bàyyi woon feneen ci ku jàngul tubaab du ko xam du ko mën a wax waaye mu bàyyi ba ma ayee ci kër ki jàngi tubaab mu ngi ko 17 avril fekk booba doo fanaan te suba di peel ba mu yeewoo rek ma dañ waaw luy 17 avril ma ne baat dafa ma léegi 17 avril la ma ne ko man mii maa xam luy 17 avril bis bii kat ci laa ci loolu laa ko jëlee te lu tax muy tafet avril avril bay coorom avril fii fu ne la ñuy tàmbalee ruuj waaw te booba da lay ruuj mag gi ñëw ma ne ko man mii maa xam lu di septembre gi ca laa da hmm? bis bii nag day bis bu rëy ci man ak ci yéen ñi wallaay day bis bu rëy dans l'humanité daa waxuma Sénégal rek dama leen a jëndale yéen ñii di samay taalube yéen ñi nga xam ku ci am ngërëmul yàlla bis ci la sosoo yéen ñi nga xam ni ku ci doonu murit ànd ak ci laa doone murit ci li fi ma a xam bis bii ci laa ànd sëriñ Saaliwu ci laa doone taalibub sëriñ Saaliwu ci laa ko toppee ci wàllu àddina topp gi topp sëriñ Saaliwu ci laa amee lu ma am ci àddina ci laa doone élève ci laa jànge ci laa amee diplôme ci laa doone haut fonctionnaire ci laa amee solde ci laa takkay jabar ci laa tabaxee kër bis bii ànd ma xam ne Serigne Saliou moo def barke ci man booba seexaguma waaye barke bi nga xam ni daal di naa koy yëg sama bopp ndax jamono ju ne may yokku te def bii la sosoo bis ci laa Serigne Saliou te bés bu la tua cofeel gi ma sopp Serigne Saliou te bés bu la fosoo ngëm gi ma ko gëm ba ma tëdd guddi mu gën la sama ngëm di ko daam di ko defar ba sama ngëm ga baax bés bii fi la sosoo bés bii sama ceex gii ci bés bii la sosoo bés bii lii ma Serigne Saliou defal ba ku ma gis dem àjjana ku ma xam dem àjjana ci bés bii la sosoo te bay yii kat boo ko jàngee di nga xam na lu tax Serigne Saliou dina ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana ndax bés bii ci la defee ma set ci bakkaar sama ruu di leerub yàlla ci la sete ci bakkaar ndax ruu yëpp ay leer la waaye ruu ne lu koy pilimal mu mel ni ab seetu boo jël multi calvin di ko di ko ca def ba dootu am image te ñun ñëpp ci seen cosaan lépp lu leer la mel ni seetu booy jàkkaar lool waaye saa yoo defee bàkkaar sabaroo di ni ma sa ruuga amatul benn tilim tilim leeru yàlla bi mu doon dellu si ko moom la bind moom am immaculé am immaculé mooy le sa sa ruu ga dellu na ca cosaanam fa yàlla leeru yàlla képp koo xam ne nag sa ruu dem na ba immaculé ku la gis yàlla la gis ndax leeru yàlla ne ku la gis leeru Muhammadu Rasulullaay ga la gis loolu yi tëb lu ma expliqué man li ma jàpp moo tax sëriñ Saliou naa ma la gis dem aljana ku la xam dem aljana la mu def lepp sax xaw ma ko waaye nag li ma ci jot a xam ni sama xam-xam may ma diko set diko xiyat fofu la doon ndax yalla mu xamat la sunu borom wax di mo ko gis dem aljana te ke noné la mbirum ma demé serigne touba ñu bind leen ñu ko gis dem aljana li ci serigne salim boole ñoo ci bokku ñun moy ku la xam dem aljana man Serigne Saliou ba du ko jigéen sama taalibe yi am ak taaw ma tudde Serigne Saliou ami taalibe ba ëpp le léegi ñu bari ay taalibe ci bii la sosoo bis bii sunu mbaa ma amee ak wér ma muccee amee soxna amee doom am teraanga te bis bii la sosoo bis bii la sosoo ku ko gërëm man mu am ngërëmul yàlla ci àddina ak alaaxira mooy saadatu daarayni àjjanay biir ak àjjanay biti bis bii sama penc mee ca Tuubaa ci bis bii la sosoo kër yee ma leen di jox ngeen dëkke ci bis bii la sosoo sunu màggal gu neex gi sax tey jii sunu cant gi gën réer cante woon ci bis bii la la sosoo sama tur wi mu lëkkale ak turu Serigne Saliou sama tur wi dootu fay sama tur wi nga xam ni dina ma yóbbu ba bu bu ma duggee biir bàmmeel sama bàmmeel danañ ko siyaare danañ ko wër danañu ko teral te nit fa jox ci bis bii la sosoo na yéex bis bii sunu mag yu bari